bennoo la bennoo mburo ak soow a gloria bi mooy victoire ba incha allahu rabbi bu neexee yàlla incha allah monsieur le ministre dinañ ko féetee incha allahu rabbi dama kontaan ba mënu ma wax may sant nag mbooloo mi yëpp nag jërë ngeen jëf sant naa Maxfu sant na max fu ñoom Dabaax ñoom Cheikh Mandaw ñoom Iba Gueye di sant sama doom Sayar Mangane di sant nag ah wax dëgg yàlla ah Cheikh Lo Cheikh Lo sant naa la gërëm naa la yëg ngeen ma yal yàlla fay leen monsieur le ministre victoire bi rek moo ñu dese incha allah daan toog fi ne alhamdulilah jërëjëf suñu borom bu ma deewoon tey àjjana laay dem.

soo demee ci banque yi ñu laaj la këyitu kër soo demee ci banque yi ñu laaj la caution suñ la lebalee ba pare ñaari weer ñett ñu commencé la laaj ak intérêt loolu moo leen sonaloon. yàlla dogal na nag man financement lancé loolu lépp man rabbi yàlla sutural nañu ñun ñoo koy jëlal en charge man maa leen di jëlal en charge caution yi kuy compte doo fay dara maa lay fayal caution mais également loo laaj ci financement muy 500000 1 million man ma lay fayal intérêt bi do fayit ben intérêt donc damay déposer xaliss ci banque ba kuy ubbi rek ñu jël ci xaliss bi ma déposé ubbi la caution su intérêt yi commencé ku ñu wara dag intérêt jël lama fa déposer daal lay dag intérêt defal man ma support. lolu la lancé ci Thiès lolu 100 millions la tambali, wante 200 millions lama directeur bi wax jëm 500 ba 1 milliard su yalla défé jamm ñu am ndam man li ma bëgg a à Thiès c'est une banque pour les femmes. boo xam ne dama fay loger un milliard jigéen ñu ko bëgg a liggéey dem liggéey laaj xaalis duñ la laaj caution duñ la laaj intérêt jox la nga liggéey dem pour sutur la yàgg sa njaboot. man lool la lancé pour njaboot yi lool laa lancé pour jigéenu Thiès te yaay booy yow yaa ngi ci woon kon xamal ni ci biir conseil d'administration boobu may teg ñuy gérer loolu yaay booy di nga ne ci biir ndax yow ku la ci dugal dugal ci jigéen. dinaa leen ubbil ay locaux ubbil leen ay bureau yoo xam da ngeen di autonome foo xam ne jigéen bu jóg. bëgg ci financement yi fala leen di fekk ngeen am seen administration am seeni i secrétaire am seen i oto di yóbbu seen i financement di organe jigéen di leen defal lépp yooyu yëpp loolu laa leen di defal jigéen ñu autonome autonomie des femmes autonomisation des femmes loolu lay lijjanti jigéen ñi yéen a koy gérer seen bopp man lu ma dem yóotu ji ci kaw indi ñëw jébbal leen ngeen di gérer lijjanti jàppale njaboot yi. ñun vrai caravane bi nga xam ne dafa war a jugee Thiès jaaragul bii dañ doon gunge man ak sama ministre. le ministre Yang mon frère le ministre Yang ko jënd la ñu doon dem Cité Senghor genre doxantu dong la xamal leen bi ñu leen war a defal yegg seegul waaye malgré tout ça mobiliser ngeen mobilisation bu am solo bi yëpp maa ngi nuyu sunu coordinateur l'infatigable Pape Sow maa ngi koy ziar bu baax a baax ci disponibilité ak courtoisie mais maa ngi nuyu suñu jigéen aussi koo xamante ne taxawaayam ñëpp ko xam. ah maa ngi nuyu di sant suñuy jeunes yoo xamante ne am dynamisme bu ordinaire mën naa ci jukk ñenn rek xëy na du ma matal waaye daanaka ñoom ñëpp xam naa leen. am nañ suñ beneen frère koo xamante ne taxawaayam ci wetu président yi di se kenn nattable wu ko muy mandaw ma ñaan ngeen daajul ma ko bu baax a leen wax rek ne ministre wax na ko léegi. dina jàpp si jigéen ñi bu baax te commencé na ko ñëpp ñu doon wax naan financement yi ay lii la wala laa la loolu ça appartient à l'histoire maintenant xaalis génn na jigéen ñaa ngi koy commencé jariñoo maa ngi nuyu sama jigéen yi nga xam ne dama fekkante ñoom fii ñu doon rakk ci sama frère sama grand frère mon très cher grand frère je veux nommer l'honorable député maa ngi nuyu bu baax a baax maa ngi leen koy nuyu maa ngi leen di bu baax a baax di leen wax rek Cheikh Ablaye Yakhine waa kër Cheikh Ablaye Yakhine na ngeen dalal seen xel ndax sa njàmbat li ngeen am li gën a mag fekk ne ñun bokk na ci suñu programme bañ naa loon ko ba pare mooy ndox mi ngeen di tuur seen buntu kër yi mu am jafe-jafe ba ngeen xam ne doo leen mën a dem doo leen mën a dikk comme ne comme ne mbedd yi yaatuwul bañ mën a am réseau d'assainissement bi ñu bëgg ànd tànnaa liñ ci mën a def mooy fexe ba ngeen am ay réseau d'assainissement autonome en collaboration parfaite avec le ministre Yankhoba Diattara futur maire de la ville de Thiès ñu fexe defal leen ay puissards ngi ak ay lavoir yoo xam ne di ngeen ci mën a def ay ndox du ci loolu mooy message bi comme dañ ci doon jaaroon rek jarul ñuy guddal ni dellusiwaat wa salaamaaleykum wa tey nag sama xol dafa sedd ndax tey boo wootee cité Senghor gépp ñëw tey bu ñu xoolee diggante 16h ba tey caravane bu ne jaar na fi caravane bu dul caravane u jinne jaar na fi waaye waa cité Senghor gore rek taxaw ma leen di sant di njëkkee nuyoo bi nag ci chef de quartier bii nga xam ni moom lañ taxawal buntu këram defe naa ni fii moo xat waaye monsieur le maire ak monsieur le ministre. dañoo bëggoon a wàcc dem nuyu ko muy Pambay Sall tey doo gisee suñu taxawaay bii Cité Senghor maire Astou Dieng dafay liggéey liggéey bu am solo puso bi nag du mujjee ci ñun mu réer ñu ko yàlla te yàlla bu mu ñu dab waa Cité Senghor nag leen na fi am ñii ñëw pour defar dëkk bi ak ñii ñëw pour wut lu ñu am yóbbu ko seen dëkk man nag damaa dëkk Cité Senghor gii ñu investir ma ci liste yi ma remplacer maire Astou Dieng fii ci liste kon defe naa ne bala ngay jàppale ab jàmbur bu dëkk ca àll ba man mi ngeen xam ne bu ngeen soxlaa ay këyit ci man ngeen di ñëw du làmp fayee maa koy taal ku am social ci ñun ngeen di ñëw ngeen jàppale ñuy jël mairie bi. te tey jii ñun ñëpp tey fi ma toog quand j'ai vu Maam Jaara sama yaram da doon daw ndax ñëpp xam nañ yaayam waajuram bu jigéen nal ban rôle doon joué ci suñu wet. joué ko ci président Idrissa Seck joué ko ci wetu le mon grand frère le ministre Yankoba Diatara mais man mu defal ma càmminu bopam di ma dima di ma défendre fu kenn nekul bañ nañ ko ba nit daan wax ci man sax da daan wax né xaar de bi may jëw dañ nan ko sa chamine li loolu moy wane né elle me portait dans son cœur et je la lui rendais fidèlement parce que soxna asu génn fu mu mës yag yàgg soxla nit moko fa yagal fu mu mës a yàgg jéem a taxaw doomu aadama yi moo ko fa yàggal fu mu mës a yàgg jéem a faslante ay xol ñu juboo doon benn moo ko fa yàggal donc bu ma ñëwee fii tey muy sama première occasion ñu mën a adressé wu à waa cité Senghor 2 mooy ñoo ngi koy rendre un hommage mérité ñaanal ko yàlla na yàlla na ko yàlla yóbbu aljana yu kawe kawe kawe kawe kawe ci barke Seydina Muhammad xaar nañu ba ñëw fii xaaruñu ba ñew fi soog xam lan moy sen problème xam nañ ne da ngeen am problème fo leen tour sen ndox mi inshallah rabbi ne ngeen ma taxaw ngeen am ay puissar yo xamantene di ngeen ci def ndox ndox mi du leen sonal inshallah muy góor di jigen ngir intérêt Cité sango ngir intérêt Thiès muy intérêt ville Thiès yeen wa Cité sango da ngeen a gore yéen cent mille francs jëndu leen yéen t-shirt jëndu leen da ngeen a gore te da gore ba dee moo tax fu ma dem dama leen di ndamoo dama leen maa fi gën ay dëkkandoo centre Demba Diakhaté mooy centre bi nga xam ni mooy le premier centre ci wàllu résultat kon na soo leen gisee ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi laaj dañoo jël seen bët teg ko ci centre Demba Diakhaté léegi suñu bulletin mooy chocolat bi am bopp fas bi yéen ne ngeen siise bee ngeen bëgg mooy bii bii man maa ngi ci yi mooy marron bii bëgg nañu mbokk yëpp ñett yi ngeen di voté soo leen duggee ngeen tànn bulletin bi ngeen def ko ci enveloppe mooy wooteel seen bopp wooteel si la Senghor dama ni monsieur le ministre monsieur le maire Saër Mangane problème bi ci mooy fa ñuy tuur bis bu ñu faloo bis ñu faloo suñu gagné Cité Senghor dinañ am ay puisards yu ñu tuur école les élèves s'assoient par quatre avec cette condition difficile l'école a été classée première des écoles publiques de Thiès avec toutes ces difficultés monsieur le ministre construction en monsieur le maire monsieur le ministre école bi nañ daf ko doon gañe mom dong ci njambaram ci taxawayam ci engagement ci côté population yi motax élection bu ñëw Cissé bay gañe ko haut la main fii ci te Senghor yàlla dogal na nak tay dañu wax Benno Bokk Yaakaar ñu dal di wax mburok sow ba nga xamni sama mag yi mu doon andal ma xam leen nga xam ni ñoo bokkoon koñ bi ñu nekkoon ñun réew mi ñom ñu nekk APR tey nag président Idrissa Seck ak président Macky Sall joxante loxo nekk benn pour liggéey Sénégal loolu nag yombalal ñu lépp su ma gisee tey suñu mag Por ja Salif Por Dia nga xam ne suñu mag la mu ñëw ànd ak CCB yi def équipe ñu nekk benn dafa naa ni kon fii victoire 90 pour cent la ñu am fii ci école bi loolu moom leer nañu. mais rek waa Cité Senghor ngeen xam seen école bii ngeen xam ne seen préoccupation majeure la. xamal ne bàyyi nañ ko xel lépp luñ ci mën incha allah dinañ ko def te duma ci wéet te duma ci wéet parce que yi ni ngeen ko xamee maa ngi feggoog sama grand frère le ministre Yankhoba Diattara lépp loo xamante ne am nañ ko fu ñu ci limité incha allah moom dina utiliser carnet d' adresse am utiliser contact am utiliser xam-xamam ak influence am pour kook loolu réaliser maa ngi leen di wax ne aussi seen ndox yi ngeen tuur ci mbedd yi mu leen di indil ay jafe-jafe yéeg nañ ko lépp luñ ci mën dinañ ko def pour ngeen am ay lavoir ak ay puisard ba ngeen xam ne mën ngeen di jaar seen mbedd yi te doo leen takk doo leen dugg ci benn politique. maa ngi teew dañuy wax waaye nag balaa maa joxe kàddu gi dinaa gërëm le comité électoral. de, de, du centre de vote Lamane Ngom ak Faye dans ñoo xam ne def travail bu am solo jiite ko ki ko jiite di Samba Sène su ma ko waxee yóbbu na géew ñëpp kon comité électoral bi gàcce gàllaama waaye la jeunesse la jeunesse la jeunesse la jeunesse je suis fier de vous je suis très de vous li am solo mooy nee naa leen un dama ne école Silema Lamine Ngom ak Faye dama doon wax quatre vingt pour cent mais aujourd'hui mën naa wax ne nous aurons plus de quatre vingt quinze pour cent. bu ma ne day day da leen jox seen ñamu bët loolu sama frère Saër Mangar moom moo ko doon wax ñamu bët day am nañ leen jox seen ñamu bët gën aw. ndax jeunes yi projet bi nga xam ne dama koy lancé wax naa leen ni président de la république pôle emploi bi na Thiès tàmbali na. président def na ci 4 milliards pour les jeunes du département de Thiès du département mais il faut ñu gën ko organiser ba tax na jeunes yi day déposer seen projet li ngeen bëgg day ko wax mais dama ni man ci sama comme ni ma defal jigen ñi lancé un ben projet un programme pour les jeunes la mais bobu 50 millions la ci def té 50 millions bi tambali la tax man dama bëgg jeunes yi projet comme ni ma defal jigen ñi comme ni ma defal jigen ñi. day nekk ay procédure simplifiée mooy xam nga soo demee banque di leb xaalis dañ lay laaj ay këyitu kër dañ laaj ay garantie man dama sama bopp man maa leen di fayal garantie yi maay déposé caution bi nga xam ni ci ngeen di faye intérêt yi kon loolu duñ leen laajati lu bëri may leen ma duñ leen laajati lu bëri mais tamit da ngeen xam ni du ngeen fay benn intérêt mais il faut ngeen liggéey na di sant bu baax ci mobilisation bi mënoon naa bañ a wax ndax sama grand frère di seen mbokk di seen lépp mooy le ministre Yankhoba Diattara bu demee géew yóbbaale nañu waaye waaye mais sunu sunu benn sunu sunu beneen di seen mbokk doon seen lépp bu waxee ci mag gim doon mag ci mag ci man doon kilifa ci man doon référence ci man bu waxee rek ci kanam ay mbokkam yow mën na maa yóbbaale géew mooy le directeur Mamadou ñu ngi nii sama moom seetlu naa lenn étape buñ mën a dem mën na léegi léeg emploi temps agendaam yóbbaale ko ba du ko mën a teew waaye saa yi ñuy dem foo xamante ne dafa am une présence de la communauté séeréer mënul permettre absenté wu chaque jour il est présent donc loolu nag mooy wane ne fierté ak respect bi mu am ak ci cosaanam ak toute la communauté séeréer merci beaucoup monsieur le président directeur bu wax rek sama grand frère wax na ko gis nga tey bu ñu investiroon Samba fay kese silma yëpp war a jàpp bu ñu investir woon Seydou kese silma yëpp war a jàpp bu ñu investir woon Aïda Faye silma yëpp war a jàpp sama jigéen bu ñu investir woon Habib Faye silma yëpp war a jàpp bu ñu Samba Sène silma yëpp war a jàpp bu ñu ne bu ci yemoon kese ñu ne biram mii toog sama xarit la te mën naa nekk man bu ma nekkee maire ñu ne biram sama xarit la xam naa ne du ma fàtte Silma moom kese bu doon loolu dong waroon na tax ngeen mën a jàpp waaye yamu ci dañoo jël seen doom yi yëpp le président Idriss Seck ak président Macky Sall jaarale seen dogal ci ñun ñu jël fexe ñu ne Silema ak ni mu toll ci dayoo ak représentativité bi ñu bëgg communauté séeréer bi am ko mënuñ leen fàtte ginnaaw non seulement vous êtes présent en nombre macha allah mais aussi y a des personnes de qualité yoo xam ne dañoo figurer dans cette liste là.

bu ñu gisee taxawaay bii mooy wane Silma est conscient du rôle qu'il doit jouer dans Thiès dans le développement de Thiès te loolu xam ko.